kon mbooloo mi fi toog ñun ñëpp ñuy njabootu président Macky Sall maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak di jéggalu sama xarit sama mag Cheikh Kanté ndax protocole bi du nii lañ ko tërale woon mais koo xamul noo koy def nim la defa tax ndax dañoo nekk ci ay xat-xat am yoo xam ne war nañ koo dox doxi léegi te mënuñu woon bañ a teew te bu ñu ñëwee ba fii jëluñu fi kàddu nit ñi mën nañ ko gisee neneen kon Cheikh Kanté maa ngi lay remercier di nuyu sama sœur sunu tête de liste premier ministre Aminata Touré di nuyu suñu tête de fii ci Dakar muy allindooy Ndoye Cheikh nag dafay benn jàmbaar doon ku loyal au président doon boroom xam-xam mu am ay valeurs yoo xam dañ ko bokk am yoo xam ne dañ ko bokk gëm ndax man moom fu ñu dajee li ñuy faral di waxtaan mooy li ñu xam ñun ñaar ñëpp muy luy jëmale réew mi kanam affaire u koom-koom mu am ci nag xam-xam bu wér wax na ko léegi réew mi dafa toll ci war a tànn ñun nag président tàggat ñu ci démocratie tàggat ñu ci respecter liberté tàggat ñu ci jël sunu xel yëpp sunu xalaat yëpp pour xool nañuy ànd moom ba jàppale askan wi. ministre d'État Cheikh Kanté junj na ko léegi am na loo xam ni du président du keneen yàllaa ko dogal ci àdduna bi ci jamono ji ñu toll. bu nattu nag wàccee ci àdduna ca lañuy ñuy ña nga xam ne am nañu barke ak ña nga xam ne amuñu ko gis ngeen ñun ñëpp dund nañu la nga xam ne wàcc na ci àdduna bi ci ñetti at yi weesu ñu nekkoon ci mbas ñun ñëpp gis ci àdduna loo xam ne jàppoon nañ ci film rek lay am mooy kenn bañ a génn dem ba ngay daw sa njaboot loolu dem na amoon na fii ci àdduna bi loolu wàññeeku ndax jeexagul yàlla won ñu ci kiraama ay mën na am fu sori nga gën ko yëg daanaka ña nga xam ne ñoom ñoo tàqaloog ñuy xeex li am Ukraine am Russie sore nañu lool waaye niñ koy yëgee fii ci Afrique di ko yëgee fii ci Sénégal xëy na am na ay réewu Europe yoo xam ne ñu ngi den ak ñoom te yëguñu loolu loolu it yàlla da ciy wane ko moom moom doomu aadama yëpp moo xam nan la organiser àddunaam mais boo seetaatee mbir mi xëy na mën naa metti mais ñun ñëpp ku ci nekk boo delluwaatee sa kër wala ngay waxtaan ak sa njaboot da ngay xool fi Sénégal jaar li fi am li fi président Macky Sall dolli nga xool boo amul woon wala sax bu doon doxalee wala sax bu yemoon ci ñi ko jiitu lañ fi jotoon def te li ñu ko jiit dañ fa def bari lool bu boobaa doon na metti lool ci senegal néew ma ñu ko jiitu liggéeyuñu de waxuma loolu bu yemoon ci ñu def ñu sant yàlla sant ko waaye boo xoolee li mu ci dolli boo xoolee li mu def bu ñu toogee tey jii xëy na am na ay jafe-jafe waaye ku nekk ci ñun mën ngaa ne bu jàpp bu fi lii amul woon kon tey jii fu ñuy toll bi muy defar TER Cheikh Kanté xam na li may wax ñu bari dañuy wax non non bi baaxul léegi leen nag laay ñaan ni embouteillage yi bare bu TER amuloon nu ñuy def bu autoroute amuloon te nit ñi di yokk ndax loolu la ñaan kon tey ni mu doon mel te nag ku nekk ci yéen ku nekk ci yéen bi ngay jógee sa kër bu la neexee nga xool mën ngaa jël sa baaraam maa nga jël sa bët teg ko ci loo xamante ni ci ñaar yi at yi weesu amu fi woon loolu mooy progrès loolu mooy kuy jëm ci émergence Cheikh Kanté xam na ni li président bëggoon xëy na mbas mi am na ci wàññi daa bëggoon juróom-ñeenti at ba fukki at yu nekk alalu Sénégal ñu fuul ko muy ñaar mais nag daf ci boole di séddoo di séddale te loolu wax ko ci kanamu premier ministre Mimi Touré. xam naa bu baax li may wax ndax gis naa ni mu sonnee woon ci yoonu yokkute bi mu nekkee premier ministre di xeex pour bourse de sécurité familiale di xeex pour couverture maladie universelle loolu la mën naa ko sedd fekkee naa ko président gën ko cee xër na alalu réew mi yokku mais nañ koy séddoo fexe ba ñi nga xam ni seen doole matewu ko ñu mën cee gis seen bopp loolu nag lañu opposition bëgg xañ débat bi du leneen loolu la dafa am président dafa ne damaa soxla république damaa soxla réew moo xam ne ñëpp juboo damaa soxla réew moo xam ne ñëpp ànd damaa soxla réew moo xam ne ñëpp ay liggéey mu am ñu ko ne ñun bëgguñu loolu li ñu bëgg mooy xuloo xeex di tojante ay bopp di tëgg ay pot ndax gën a tardé réew mi loolu mooy message bi xam ne bëggoon naa leen ko sànnil tey di wax nag ñun waa Dakar kuy am défi ñun ñoo la gën a am défi am na loo xam ni seen naa fi ay nitu Parcelles Assainies dinaa faral di ko wax foofa li Sénégal di neex yëpp nag ndakaaru wax gënal parce que ndakaaru laa xam ku nekk am nga am nga droit wax loolu waaye nag li ndakaaru di neex yëpp nag Parcelles Assainies moom wax gënal te nag te nag dañoo war a assurer victoire fu nekk assurer victoire Parcelles Assainies assuré ko Grand Yoff assuré ko ci dix-neuf communes yi ko ci Dakar assuré ko ci Sénégal le 31 juillet au soir ñu ànd ak premier ministre Mimi Touré Mimi Touré jox